Hello there, wonderful viewers. Welcome to the weather segment. We begin with the summary. We experience a variably cloudy atmosphere with isolated rain. Figures recorded are as follows. Karawan recorded the highest with 25 millimeters. Genoy 17.4. Banyu recorded 12.4 millimeters. Sapo 10.6. Udum recorded 9.1. Basse 5.2. Fatoto recorded 2.5 and Janjamburi recorded least with 2.2 millimeters. We now take a look at the satellite picture indicating the presence of convective clouds over Gulf of Guinea states, the central and the eastern part. There is also a cell over Mali, Mauritania and northern Senegal, which will persist in the next 24 hours. For the forecast tonight, we'll be expecting a cloudy atmosphere with outbreak of rain to prevail over the entire country. Whilst the day tomorrow, we'll be expecting rain and thunderstorm to affect the entire country during the period. Light to gentle southwesterly breeze will dominate the flow over the entire country, whilst morning temperatures will vary between 22 and 24 degrees Celsius. And for the afternoon temperatures, They'll vary between 28 and 32 degrees Celsius. For those going to sea, we'll be expecting a low tide of 0.33 meters at 7.09 a.m. and also 0.34 meters at 7.29 p.m. For the high tides, we'll be expecting 1.7 meters at 12.59 a.m. and also 1.56 meters at 1.19 p.m. Wave heights will vary between 0 to 1 meter and they will be mainly northwesterly swells. The sun will rise at 0653 and will set at 1905. Thanks for watching and it's now time to take a look at the city forecast. Before we go, a reminder of our headlines. 22 technical assistants from the Federal Republic of Nigeria are set to contribute to the Gambia's health and education sectors. Women from across the West Coast region have received life skills training on the transformation and preservation of perishable fruits and vegetables. Burmese opposition leader and Nobel Peace laureate Aung San Suu Kyi has backed the U.S. Congressional Medal as Washington renews its support to Wiyagun's newfound democracy and the scourge of heroin addiction in war-ravaged Afghanistan has taken an appalling toll on the bulk of that country's young population. You are reminded that you can monitor GRTS Radio Live on our website at www.grts.gm. That brings us to the end of this edition of news. Thanks for watching and enjoy the rest of our programs. ahousubillahi min asheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim ah, comme liñ ko baaxoo di def yàlla dimbale ñu ne imaam yi rek a fi nekk bugga naa ngir jiite ñu ci ñaan Excellency the Vice President, the Honorable Minister of Regional Administration, Lands and Traditional Rulers, uh, the Secretary from Office of the President, uh, the Imam Ratib of Banjul, ak di président supreme islamic council a council Member Sifineka, and Imam ak imaam <coughs> ma waxtaan yi comme ni ma ko dee waxee rek benn la dafa mel ni xol yaay gisee rek ne Gambia benn boppa la ñun ñëpp benn lañ loolu tax suñu xalaat duy suréyaate ñii nag ñoom it dañ ñëw waxtaan bi ñoo ko moom nag waaye seen tànka rek tànki kilifa lañ ici moom lañ ekkati pour ñëw ci yow fidélité kóllëre ak seen président boo xam ne ñun ñëpp xam nañ fu mu teg diina su fekkee ne wax ma ne islaam euh, euh, li fi ñu toon Gambia de waaye tey alhamdulilahi rabbi alamin comme que tey amuloo benn office booy dem te jamonoom la xew fooy dem te doo fa fekka jàkka fu nit ñi di jullee su watu julli jotee euh, romb na pour nit ñi di jógee ko seen liggéeyukaay dox sori dem pour julli léegi foog naa almost déñ na di gisanguma office bu ees buñ tabax biir Gambia fii te jàkka nekku fa man de gisanguma ko lim ñëwee over lim njëkk a def mooy dafa tabax juma ci biir palais bi loolu tamit history la xawma ndax geneen réew bi ko aguma fa <coughs> waaye xam naa ne history la in Africa mais fu fooy dem nit ñi di jóg suba doo bési juma duñ dee seet kii mooy kan kële mooy kële ñëpp dox ñëw ndax borom sagar la ndax borom am-am la ndax ñëpp dox ñëw dugga biir state house su président nekka seetuñ si sécurité seetuñ si dara mu ñëw boromam ñëw toog ci jumaa ji julli ba julleem pare mu jóg dem te yenee sa duy am ci loolu léegi da ngaa julli ba pare sax tuuti mu nekk di most popular mosque bi ko da ngaa julli ba pare sax mu am loo xam ne dinañ la ko jox nga demaale moom te loolu yëpp foog naa ci dundal lislaam la euh, kooka euh, kooku su fekkee imaam yi ñëw nañ pour euh, waxtaan euh, jëmale ci moom foog naa tànka yu baax lañ jël tànka yu tànki fa lañ jël kon li maa def rek ma dina invite euh, alhaji Sirif badian moom ubbi jotaay ji ñu continuer dem ñu ngi nuyu suñu kilifa suñu yaay docteur Ajaratu Aysatu Njaay sedi. vice president of the Republic of the Gambia di ko xamal ne jéego yi nga xam ne tey moo ñu fi andi moo di jéego yi nga xam ne moom la jullit yépp di jéego jëmale ko ci seen njiit loo xam ne dañ ko naw ci mbiru diineem naw ko yit ci mbiru njabootam ñaar ñooñu mooy li nga xam ne moo ñu fi andi tey ñu feddali ko feddali ko ci taxawaayam di ko xamal ne ko julli ci Gambie yépp ñu ngi ànd ak moom tey jiital suñu ñaari kilifa yi ñu ñëw di dëgëral loolu ci moom di dëgëral ci moom it cofeel gi nga xam ne am na ko ci réew mi mu ànd ak yërmande bi nga xam ne moom la ko yàlla dénk te mu di ko wane guddi ak bëccëg ñu di ko sant ci ñaar jikko yooyu mu de jikko yu màgg di ko sant ci fulla ji nga xam ne yàlla dénk na ko ko ñu di ko ñaan yàlla yàlla saxal ko ci ba nga xam ne du gis du xool lu dut yàlla ñu ngi koy xamal ne ko ñi ñépp ñu ngi ci gannaawam ko xamal ne ko suñu xol sedd na ci moom ci ñaari boor ci taxawaayam suñu xol sedd na ci moom itam ci xolam bu yaatu bi nga xam ne yàlla dénk na ko ko ñu di ko ñaanal yàlla jàppale ko ñu ñi dëkk ci réew mi alhamdulilah ñu ngi sant yàlla bu baax ñu xamal ñu nekk ci biti ne li ñuy dégg ci biti ak li nga xam ne mooy am fii ci réew mi su dee lu baax la nañ xam ne lu ko raw mu ngi fi suñ déggee beneen safaan nag lu du loolu ñoo xam ne nañ na leen wóor ne loolu neew fi ndax ñun tam lépp lu ñu fi wax ëllëg ak kese bi dinañ taxaw ci kanamu yàlla ñu layoo ko kon duñ fi wax dara loo xam ne tey lu ñuy euh, lu neex kenn la ëllëg ñu jógee fi xamuñ ndax dinañ ko dinañu fekkee jant bu soom déet waaye ñu ngi xamal àddina si yëpp ne ko jàmm moo fi nekk jàmm jooju